faatal sama jabar ji seetaan na vidéo bi de ah si kat ni muy xeeloo dafa ëpp gars yi di xeelu faatal naan nii faatal nee na xeeluwu ko bët yee mel noonu ah kii de bëtam yi ñaaw na xaaral moo faatal moo xool sama chéri bi lu muy wax. waaye Amore. Adamu ay Adamu ay Adamu. yow kii xeelu noonu day xeelu wala noon la mel. ay Adamu day dindil vidéo bi rek àdduna amul solo dindil rek. waaw mais moom dalay xeelu wala nu mu demee noonu man kay loolu amul comprendre. non xaw ci dara man xaw ma ci dara xaw ma ci dara mais dindil rek. ah yow kat yow ma bëri yow yaa ma bëri noonu la mel moo tax bëggoon ko dindi. <laughs> mais yow lay xeelu. <laughs> xam nga bëgguma lu la métti. Sénégal gi yëpp nee na yow lay xeelu ki booy sëyi kër ngaa ko bu ko yóbbaale de. ma. waaw kontaan naa nag ci mariage bi yàlla na yàlla defal jàmm. ok chéri mon amour mais sama takku dënn danga maa trahir bébé. ah sa takk dëgg sa jëkkër laa bu danga maa trahir waxal dëgg bàyyi ma waaw. léegi nag wuy ma sama takku dënn maa ngi koy xaar dégg nga connexion nag amu ko amoo connexion mais sama kat takku dënn maa ngi koy xaar dégg ok.